mercredi de l'arène ah mbokk yi projet bu bees CNG bu bees innovation yu bees mercredi 7 avril 2021 à l'arène nationale gala de lutte traditionnelle bu mag 3 millions de francs fois le CNG bi teg ci kaw table bi pour première journée waaye nag CNG de lutte bi yemu ca ndax chaque mercredi dina woo mbëri ci arène nationale ñu daal di jongante en direct lay doon sur la TFM télévision Futur Média pour yéen ñi nekk ci Sénégal yéen ñi nekk ci diaspora bi CNG bi yombalal na leen ko ndax mën ngeen a seetaan gala bu mag boobu ci seen affiche point com ak ci CNG Sénégal point com kon daw leen gaaw jëndi ak seen ay carte bancaire ndax fi mu toll nii yëf yi 2 euros 99 rek lay jar.